Euh, sur le terrain ndax motuwaay yëpp jël nañ ko euh, dem nañu visiter Sonatel ñoom gis nañ ne euh, vraiment jël nañu disposition yëpp jël nañu motuwaay yëpp. Euh, ba lépp loo xam ne euh, ci wàllu jokkoo euh, matal nañ ko waa Expresso ñoom déployé nañu six antennes yu bees di waa Free ñoom tamit déployé nañu ñaa ñeenti antennes yu bees yoo xam ne amul woon fii loolu yëpp euh, pour que jokkoo bi euh, avant pendant et après bés bi nga xam ne mooy bésu gàmmu gi mu jaar yoon orange jël na disposition yu mel noonu euh, pour que pèlerins yi bës bi ñu mun a am lu ñu tuddee wifi gratuit